moom moome kon nekk foofu di siège ci parlement bu CEDEAO lamu bu it nag di bataaxal daal di ko fësal rek moom Seydi Gassama moo di ne nag Sénégal ak peuple yi CEDEAO yëpp am na ñu mbégte mu rëy rëy eh, jëm ci yow Guy mari Sagna yow nag yaa ngi daal eh, gëm ne te di ñu xamal di ñu jox raison di ñu jox tamit yaakaar eh, que ne CEDEAO boo xam ne dana fi nekkal askan wi taxawal fi askan wi di dox ci tey askan wi nga xamante ni ñoo ko wund. Euh, lu mën a nekk la maanaam daal mën nañu am CEDEAO boo xam ne du fi nekk di gaañ askanam di dox di liggéey ngir keneen waaye rek CEDEAO boo xam ne dana fi nekkal askan wi ci yow Guy Marius Sagna gëm nañu ne lu mën a nekk la ñu fàttali rek moom honorable député euh, rek dafa daal di euh, bokk ci kàddu yi nga xam ne yëgit na ko foofu ci parlement bu CEDEAO te taxaw ca nag muy dénoncé bu baax a baax rek posture président togolais bi di Euh, ci turuk Faure euh, Gnassingbé be euh, moom Faure Gnassingbé moom parlementaire bi nag jàpp ne rek kon dafa utiliser li nga xam ne mooy la démocratie néocoloniale pour nag jàppee réewam ak royaume maanaam daal def boppam comme buur noonu daal la ko moom mii di Guy Marius Sagna jàppee loolu nag ko bu baax a baax a baax ca parlement bu CEDEAO te tamit addu woo CEDEAO que ñoom ñu ne nag ñu daal di jël li nga xam ne moo di seen i responsabilité ndax lu nu war nag warta mën a wéy ca réew munu mel loolu nag mel ni rek ak intervention yi xam ne mu ngi koy amal foofee daal daal dinay rek nekk loo xam ne euh, peleer na bu baax a baax kii di Seydi Gassama ba waral sax mu daal di yëkkati rek kàddu yu nu mel daal di ko jëmme ci kii di Guy Marius Sagna la mu ko xam ne rek moo di askanug Sénégal ak askanoo ko CEDEAO am nañu mbégte mu rëy rëy jëmee ci yow ñu lee te ci yow sax gëmee nañu ne CEDEAO boo xam ne daf fi nekkal askan wi lu mën a nekk la